ko. Serigne Salif François Manka bu roi ah, mankaañ yi génn ci cell gi mu nekkoon diwoo woo ñëpp ci ak dal ak ñu gën a booloo fekk booba kon kuréel gémb mankaañ yi gonto woon démb yëglu ne li nu bëgg moo di François Manka bu ak faatum lépp ñu leeral ko baykat yi nekk ci a bassin arachidier itam di yëglu nekkoon nawet bi euh, li muy xeeñ neexul benn taw bi yeex na ba ca des moo di kon njëgul euh, engrais bi cher na ba jéggi dayoo campagne électorale bi jëm ci élection falum député yi nu jàpp fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi ñu dëgmal fitna judduwaat ci fële ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès oto maire ba di docteur Babacar Diop lañ songo yàqate ko li ci doy waar nag moo di militant yu Pastef lañ ko tuumaal maire baat dem ba police daal di yëglu Bamba Fall moom mooy maire bu euh, Médina bàyyilul dara bu Dakar di Barthélémy Diaz ndax nag Bamba Fall nee na kon euh, moom Barthélémy Diaz dafa bëgg a bépp yelleef boo xam si euh, maire bu Médina amee na ko ca ville de Dakar tàggat yaram mooy buural euh, jotaayu xibaar yi ñu ñaanalante Abdou Thiam moo nekk ci machine bi. Serigne ci kàddu gi mbokk yi bi mbégte ak contentement bu mag toog ci si Joor di leen jottale xibaari suba si nañ leen ko xëcc bopp ba rek la ñuy dugg gi ak fédération bi nga xam si moo ëmb kuréeli euh, association Manka yi nekk fii nii ci réewum Sénégal ñoom nag li ñu bëgg moo di kon faatuk François Manka bu ñu daal di leeral lépp membre yi nga xam si nag ñoo bokk ci les kuréel ni ki démb lañ gontoo woon janloog taskatu xibaar yi ci teewaayu Abdoulaye Diallo. dëgg dafa war feeñ ci faatu kii di François Manka loolu la ndaw yi bokk ci fédération bi nga xamante ni moo ëmb association mankaañ yi fii ci Sénégal bëgg Michel Kabou moo yor seen kaddu. lenn nag lañ bëgg mooy dëgg justice mu def liggéeyam ñu xam ne ah kii léeg-léeg lii moom moo xew loolu rek moo ñu tax a jóg du leneen di wax ni askanu Sénégal ñu baax lañ muy mankaañ di joolaa di pël di tukuleur ñu ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi du yëfu xeet moo ñu tax a jóg mais dañoo bëgg dëgg. keneen kuy wër dëgg ci mbir mi mooy Abdou Karim Gueye xurum xarax procureur de la république yëkkati woon na ko ci mbir mi. que nit ku mel ni François Mancabou munul nekk nekk kilifa am cinquante ans servir armée sénégalaise pendant servir Cheikh Tidiane Gadio nekk cadre rapproché yor permis port d'arme ñu ne dafa jékki-jékki rek dof quoi parce jàpp nañ ko rek mu mbëkk miir bi loolu c'est de l'insulte mais qui respecte les gens au rey nañ ko tooñ nañ ko dóor nañ ko torturé nañ ko rey nañ ko mais nañ respecté sénégalais yi. Abdou ci mouvement nitu dëgg moom jàpp na ni war nañu mën a taxaw temm ngir suñ ko deful ñun nañ dem def manifestation fépp fexe ba opinion nationale internationale xam ne Macky Sall criminel la dictateur la day rey ay doomam. di fàttali ni François Mancabou dañ ko tegoon loxo ci mbirum force spéciale yi moom ak ñeneen i nit waaye depuis ñu fësal dafa génn àdduna ñu bëri ñoo daal di yëkkati ay kaddu ngir rek ñaawlu li ni mel waaye tam ñaax nguur gi def lépp lu ci war ngir askan bi mën a xam ci dëgg-dëgg François bu naka la génnee àdduna Abdoulaye jàlloo ci lu aju ci euh, faatuk François Manka bu boobee itam euh, roi Mankañ yi daal dinay génn ci cell gi mu nekkoon ab bataaxal fésal di leen woo ñoom ñépp ci ak dal waaye itam ñu gën a booloo su ko defee lépp loo xam si euh, bëgg nañ ko lijjanti ñu daal di koy lijjanti ci tey waaye itam ci ak dal ñu des ba tey ci wàllu yoon ak mbir ma xewoon fële ca lis Ousmane Sembène ba nekk ca Yoff taxoon tamit ñu teg ca ay élèves loxo laataa ñu leen di may bàyyi ndiggandiku kuréel gi nga xam si nag moo ëmb waajuri ndongo yi nekk ca boobule école daal dinañuy na ñaawlu uh, jëf ji ba noppi ne kon dinañ def seen kemtulaay kàttan ba su ko defee ñu gën a ñaax gone yi ba ji jëf dootul amati ñoom it ni ñooy ñaawlu anam yi nga xamante noonu la dossier bi mujjee ak ni administration bi géré problème bi Siri Diouf nekk secrétaire général associé association bi. bi dafa décidé déposer plainte directement ñu jël xale yi yóbbu te li si gën a am na xale boo xam ne da déposer plainte ba pare moom moo bindaat ci gannaaw yooyu dafa nekk loo xam ne ñun mënuñu wax dara suñu justice parce que justice lan la am pour teg lépp ci yoon dañ ko joxe it àtte na ni ñun amuñ ci dara luñ ci wax lu dul rafetlu ko même bu téye woon xale sax dañ naan ñoon rafetlu nañ ko parce que dañ naan ñun dañu wàllum yorinu l'école bi ba tax bi rek mu indi ay ci mbir mi. mais ñun suñu xaalis sax suñu un de un à dix pour cent boobu sax mu ngi ci loxo te lépp luñ ciy def it dañuy ci bind lañ leen yi jàll yëpp ñu bi moom. dañ ci nañ ñu génneel justifié. wax ñu suñu solde compte à la de la réception de la lettre. ci lycée Ousmane Sembène bu Yoff melokaani bërëb ñuy jàngee nag jaaxal na waajur yi ba tax na ñi ngay sàkku rek defaraat bërëb bi laata école di ubbi

Oumou Kalsoum li ci wàllu jàng ak jàngale la ñuy des ba tey ak kon l'examen baccalauréat yi nuy soo bokk BFM yi nga xam si kon moom la ñu dagmal lu toll nag ci ñaari téeméeri mention très bien ak lu ëpp juróom-benni téeméeri mention à bien loolee tam moom la ñuy daal di xaar ni ki ren ji nekk xibaar boo xam si jëwriñ ji sàllo wàllu njàng mu suufe mekk mu digg doomu mi moo ko daal di xibaar ci tournée boo xam si mi ngi ko doon amal ci ba muy toll fële ca diwaanu Matam Bandel Niang yu baax yi tukkee ci examen gi ñu njëkk amal ci njeextalu année scolaire bi ngay tukkee ci programme bu am solo bi ñuy dawal ci réewum Sénégal lu ëpp ñetti at yi yëpp ci gannaaw mooy révélation bi ministre bi yore wàllu njàngale mi amal ci bu muy àddu itam ci déroulement baccalauréat 2022. et donc wax dëgg yàlla bon bi ñu am ren gën nañ ko am mais ñun nag loolu ñu parce que ñoo ko liggéey si biir stabilité système boobu nag moo tax ñu am loolu bettuma man man li bettuma commencé nañ ko nit ñi dañu tiitoon sax moo am taw wax dëgg yàlla pour le moment tane na puis gisuñu ay erreur yu bari si bac bi la même si baccalauréat enseignement supérieur moo koy organisé suñu élève nañu nag mais ñoom ñoo koy organisé en tout cas gëm naa ne suñu xoolee quantum horaire bi ñu def ren ñu xool également élèves yi engagement bi ñu am bag bi ak BFM bi aussi xam naa noon lay demee Mamadou Talla mi nekk jamono yi ci campagne électorale ci ma Bamambé di commune bi nga xam ne moom mooy meeru dëkk ba décidé kon suivre démarrage ndorteelu épreuve BFM bi mu di njëkk ci benn région fi ci Matam ak autorité gox. Euh, le vingt 22 dinañu def le BFM su ñu def BFM bii yoon fii la koy defee la tournée tournée bi ministère bi mooy ñëw fi ñu toog fi organiser ko avec l' inspecteur le gouverneur la région de Matam. ñu def le tour également Matam ak Ouro Sogui loolu aussi lu am importance la parce que brevet bi aussi war ñu ko fàtte. ci waxtaan bi ñu doon amal ak moom jëwriñ gi yore wàllu njàngale mi daal di beral nuyoo mboolem acteurs yi nekk ci biir l'école bi rawatina jàngalekat yi. mu nekkoon sa naataango Ali Bandel Niang fii ci doonu Matam pour RFM. Ali Bandel Niang jaajëf ngeen di woy di déglu xibaar suba si ci rajo Futurs Médias juróom-ñetti waxtu moo jot ba tegal juróom-ñetti simili. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. ñu wax ci nawet bi nga xam si bi mu dooree léegi mu def ay bés yu xaw a takku euh, kaw ga nag baykat yi daanaka jamono ji ci euh, njàqare lañu ñu euh, nekk ak li ñu gisagut lu ndox mu takku boobaak léegi waaye itam leneen lu ci dolleeku moo di njëgul engrais bi nga xam si dafa cher ba jéggi dayo loole itam ñu daal di koy ñaawlu ñu teewlu ci loolu Cheikh Tidiane Cissé mi nga xam si kon mooy secretaire général bu paysan yi nekk ci bassin arachidier ci micro Omar Ndiaye. tolloon nañ benn période bu nga xam ne vraiment difficile woon na parce que amoon nañ inquiétude euh, amoon nañ benn inquiétude maanaam benn jaaxle parce que yàlla ji def toogoon lu yàgg yàgg taw ba amoon na gàncax gu nga xam ne sax commencé woon na sëngéem mais fi mu nekk nii euh, ñaari fan ci gannaaw taw na fi ba am quatorze point euh, point un bu nga xam ne moo xaw a dellu si at gàncax gi ni donc ñu ngi yaakaar ne peut-être d'ici quelque temps taw bi dina gën a ñëw parce que ñu ngi ne leen di météo nee na dina ñëw mooy problème mu engrais bi. parce que comme ni ñu ko xamee engrais bi cher na cher boo xam ne wax dëgg yàlla dafa métti ñun fii si euh, commune Nganda ñu ngi recevoir plus de quatre cent dix neuf tonnes et que par contre lu ñuy jot si engrais dafa tuuti léegi na problème bi mooy euh, engrais mboq bi dafa cher donc ñu ngi ñaan vraiment euh, état mu jàppale ñu ba nga xam ne dana mun a lijjanti problème boobu pour dégg nga maam mu yokk ñu dégg nga maam quota en en urée en en triple quinze su dul loolu rek lu ñu doon wax consommer local dana nekk difficulté. ñu wax ci euh, évaluation bu euh, jëm ci euh, tolloo ak yamale mbirum genre fële ca njaareem di Jurbel am na nag ay jafe-jafe yoo xam si daal di nañ ko ci nemmeeku mu bokk ci kon ay violence di ay ñaawteef yoo xam si jëm na ci wàllu woowe wàllu ko ndóol di ñàkk waaye itam loo xam si aju na ci jote ci wàllu ressource productive loolu itam moo waral ba ñu tekk ay pexe ngir andi ca ay saafara ñu teewlu ci loolu coordonnatrice ba di euh, Astou Diouf moom Astou Diouf Gueye mooy kon coordonnatrice wàllu genre foofee ca njaareem ci micro Alimatou Sarr. équité égalité de genre bu ñu koy wax Sénégal ñun dañ koy bëgg di tënk ci baat yu simple ndax loolu la ñu wax boo leen xoolee ni nga ko dëxëñee ñu ngi wax wàllu góor ak wàllu jigéen wàllu góor ñi ci éducation wàllu góor ñi ak jigéen ñi ci formation wàllu góor ñi ak éducation ci koom ak yëngu ci développement wàllu jigéen ñi ak góor ñi ci bépp pàcc bépp secteur bu ñu jógee ci loolu ñu ne ah dañu jógee ci ñaari at yoo xam ne dafa amoon crise crise ñu gis ne li nga xam ne xeetu ñàkk yemale la ci pratique nag ñu ne dañu gis ne dañoo am toujours xeetu gala gàllankoor yu gàllu ci ndoddu jigéen ràññee ci lu ñuy wax xeetu mettital yaa xam ci biir kër yi la ak feneen ñu ne ah région bii de sànq bi ñuy wax ak acteurs am na ci ñu ne bi ngeen ñëwee fii ca ca ca ca njëlbéen fii région bi mu ëpp lu ñuy gis ci violence gis nañu te ñàkk gi aussi te ñàkk gi ci jigéen ñi lay gën a métti yéen ñoom ñoo yore kër ñoom ñoo gën a ci xale yi loolu nag ñu ne bu ñu bëggee wax genre et développement bëgg yemale wàllu góor ñi wàllu jigéen nañ fexe ba ñu génn jigéen ñi ci pauvreté boobu mais pour ñu génne leen ci pauvreté boobu itam permettre leen ñu mën a jot seen wàll nañ fexe ba yeneen gàllankoor ñu am ñu dind amuñu déjà doole pour mën a am financement yenn yi surtout wàllu suuf meeg mbéy meeg yooyu loolu yëpp bu ñu ko defee ci càmbar ah ñu xam ne région bu nekk nag am na lu muy laaj région bi nag li muy laaj nañ fexe ba proposer programme yi tax mu saafaraw ñu def ba ñoŋal li ñuy def ci wàllu xeex métital yeeg wàllu violence yeeg xam ne ñooy gàllankoor jigéen ñi dab dabal ko gën ko ñoŋal ci région bi wàllu ñàkk itam ñu dab dabal ko proposer ay programme yi nga xam ne ñooy indi autonomie la nit jigéen yombala leen équité territoriale dafa laaj nag ñu def politique ñu fexe ba région bu nekk la mu ñu jox ko ko ñu wax ci euh, chambre des notaires euh, yi nekk fii nii ci réewum senegal ñoom nag am na njiit lu yees euh, jigéen la maître Aïda Diawara Diagne la daal di tudd moom mi ngi wutu niki démb maître Alioune Ka mi nga xam si ba fii moo nekkoon ca bopp ba waaye nag gannaaw ba sampaatul ndëndëm ngir yóotuwaat ngir jiite kon loole di chambre des notaires démb lañ doon amal assemblée générale ordinaire ba fii nii ci diwaanu Ndakaaru gannaaw booba itam ci la daal di xamle moom njiit ay kàttanam ba lépp loo xam si nekkoon na fa ni sooxe mu daal di koy euh, jooyanti waaye itam toppandi ki nga li nga xam si moo di liggéey bi ki mu fi wuutul daal di euh, sóobu woon ndax naka jàpp na ni la ci ëpp mucc na ayib ñu lu ko moom ay Aïda Diawara jaañ gannaaw jokkoom ci téléphone ak amadu Sabax Ba. li ma mën a wax mooy dañuy wéyal li ñu def parce que li samay ñi ma jiitu am na lu bari lu ñu teg def ko loolu dañ koy continuer li ci am mooy euh, am nañu ay suñu moroom suñu foog ñu jël leen en compte liggéey ak ñoom euh, mun a redynamiser ça donne du sang neuf à la chambre donc ñu mun a liggéey ak ñoom euh, chantier yi bari na donc am nañu lu ñu mun a liggéey te ak ndaw yi dinañu dinañ ci mun a egg incha allah. tey jii lan moo gën a jàmp ci li nga xam ne ne mooy chambre de notaires. li gën a jàmp mooy suñu statut. Euh, boobu ba léegi chambre lay nekk mais dañu bëgg a nekk ordre maanaam comme avocat yi am ordre professionnel am statut bu bees pour notaires yi duggal ci tamit immunité li ñu naan euh, privilège de juridiction loolu daal lañu bëgg ñu introduire ñu ko ñu am même statut que avocat yi maanaam immatriculation suuf si tamit parce que domaine national bi rëy na. et suñu président suñu excellence président monsieur le président Macky Sall na ci euh, tey jii on a beaucoup de de problèmes sur le foncier te loolu tam war nañ ci jublu. ñu daal di euh, utali siin Fatick wax kon ci conseil locaux yi euh, yëngu ci wàllu napp gi ci wàllu pêche artisanale ñoom nag daal di nañuy gën a yokk seen ay capacité ngir gën a ñoŋal li nga xam si moo di seen nekkin gannaaw kon ndimbalu bàyyeekoo ci FAO loole nag bokk na ci kon euh, gën a dëgëral seen euh, wàll woowee rawatina kon gouvernance de la pêche loolee nag liñ ci euh, jublu moo di xeex raréfaction des produits halieutiques Aminata Goudiaby. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture di FAO ñoom li ñu bëgg rek mooy fexe nu ñuy def ba meññeef yi jóge ci géej gi ñu gën leen di toppatoo di leen aar ni mu waree loolu nag ngir mu am ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàll wi rawatina nappkat yi dafa laaj ñu xam yenn dogal yi nga xam ni moom moo war ta FAO teg leen atu 2014 ba léegi dogali FAO yooyu nag directive volontaire lañ koy wax kuréel gi ñuy woowee kawopa nag ñoom la ñu sant ñuy wasaare matuwaay yi nga xam ni moom la FAO jël ci de la ci kuréel gu ni mel directive volontaire yi nag benn instrument bi nga xam yi nga xam ne nopp cosaan bi dana jëm kanam ba génération bi nga xam ne tey la ak ëllëg daañ si gis seen bopp loolu la directive yi euh, a yokk xam-xam ñi nga xam ne nag ñoom ñooy yëngatu ci nga xam ni moom la FAO taxawu jël lu war la moo tax nag am na ab lël bu ñu ubbi ndangaan sambu jagleel ko ñi nga xam ni ñoom ñoo di conseil locaux de pêche artisanale bi. atelier bi ñu def nii pour nga xam ne dana tax ñëpp xam lan mooy jëmale kanam napp cosaan. activité formation boobu nag ñoom waa CAOPA di confédération africaine des organisations de pêche artisanale ñi koy amal ci kaw projet bi ñuy woowee initiative pêche côtière ñu koy doxal ci région de Fatick atu ba léegi. ngir mën leen dooleel xamante ni napp gi dina doon dina jaar yoon ndaxte napp gu jaar yoon mooy na ngay nappee jumtukaay yi ngay nappee ak waxtu yi ngay nappee mu doon loo xamante ni waxtaanee nañ ko. jigéen ñi yëngatu ci wàllu transformation produit halieutique nag boole nañ leen ci lël bu ni mel Aminata Goudiaby Fatick RFM. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu wax politique ci xibaar ak élection falum député yi nga xam si jàpp nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru sulet bi ñu dëgmal boobaak léegi nag door nan ni nga xam si moo di euh, campagne électorale bi am na ni ki euh, tey ji ayu bés caravane bu yeewi askan week wàllu nag fële ca benn dëkk ñaari gaar di Thiès démb fitna daal dinay judduwaat ci seen biir sabab li moo di ne euh, otop maire ba di docteur kër Diop moom la ñu daal di songu ba yàq ko li ci yéeme nag moo di lañ moom lañ ko daal di ah, jiiñ ndax nag bu ñu sukkandikoo ci ki yore kàddu ko maire ba nee na kon garde corps yu leader bu Pastef yi ñoo def lu ni mel te it xàmmee nañ leen ba tax ñu ni kon mbir mi duñ ko bàyyi mu sedd lépp dinañ ko yóbbu fa mbaxana doone benn di kon ah, leneen coow loo xam si juddu na ci seen biir ñoom waa yeewi askan wi ñu teew lu ci loolu Pape mbay Dieng mi porte parole bu ah, maire bu Thiès ci micro Cheikh Anta Diop. Euh, tey coalition euh, wàllu ak yeewi askan bi doon def caravane fii ci Thiès ñu fàttaliku rek ni euh, le maire moo nekk le premier magistrat magistrature boo xamante ni moo nekk dans la ville tey képp ku ñëw moo la war a accueillir mais dafa mel ni tey bi mu ñëwee yiir la coalition ci commencement ba rek ci ndorteel ba rek déjà ñi ngi ko doon bundaxatal te ñi ko doon bundaxatal nekkul ñenn ñu dul ay garde corps yi nga xamante ne ñoo accompagné woon ki nga xamante ni mooy le président Ousmane Sonko bundaxatal nañu ñeenti yoon ñetti yoon bouleversé xeex am ñu bàyyiwaat ñu dem mais à notre grande surprise ñu gis des voyous man je ne dirais pas des garde-corps parce qu'un garde-corps digne à ce nom kooku il est censé à protéger les gens leurs biens mais aussi di leen di sécuriser mais ki nga xamante ne tey dafa génne paaka ñëpp identifier ko gis ko mu bënn li nga xamante ne mooy oto Babacar Diop bënn quatre roues yi toj vitrine bi jël pompe à gaz sànni ko ci biir oto bi loolu je pense que tey loolu Thiès waa yëpp la ñu saaga tey Thiès bu dekkoon Thièsu démb parce que au-delà même des partis politiques même de la coalition quoi qu'on puisse dire Babacar tey moom la fi yàlla teg mu nekk koo xamante ni tey Thiès waa yëpp moom la ñu wóolu ne ko jiite dama naan dañ ko bëggoon a rey parce que ñun def nañ suñu déposition parce que ñun ñëpp dañu agressé góor a mi ngi nii tey kii yàlla moo ko suturaal mais tey paak la ñu génne lu toll ci fukki ponkal tiim ko ku nekk di dóor ku nekk di saaga toj oto bi dañoo ñëw ba buntu police ci le bi jàddee ñu def constat moment bi may wax ak yéen nag euh, docteur Babacar mi ngi fii ci poste bu police centrale bu Thiès def na déclaration ñun tamit nga xamante ni on était au cœur des événements on nous a agressé dañ ñu dóor dañ ñu saaga agressé ñu bu dee yoon fépp la am dinañ dem ak ñoom ci yoon parce que yàlla dogal na ñun xam nañ leen maire bu Médina di Bamba Fall moom daal nay tuumal Barthélémy Dias mi maire bu Dakar ne diiru mi mu toogee ci euh, bopp maire bu dakaar ak léegi daanaka mbii coog mbaaloo la dëkkee ak maire bu Médina ndax daanaka lépp loo xam si waroon na ko am budget dafa bloqué lu ni mel looju itam ci wàllu ndimbal yi nga xam si dañ ko waroon a génnee jébbal leen ko ci tabaski gi loolee lépp la tee Barthé Bamba Fall daal di jàpp ni kon Barthélémy Dias jamono ji dafa nekk ci ab guerre ak commune am bi di euh, maire bu euh, Médina te mu bokk ci maire bu euh, Dakar maire bu Dakar loole nag mi nga ko xamle ni ki démb ci bi muy tàmbali ab campagne am fii nii ci diwaanu Médina ñu teewlu ko moom Bamba Fall ci micro Maguette Sow mairie ndakaaru bu dee ñii lañ ci yaakaar Medina du jag ndax maire Dakar ji Barthélemy Diaz projet yi jëmoon ci Medina yëpp dindi na ko yóbbu ci yeneen commune dama bëgg mu leer xool leen budget maire ndakaaru lépp lu ñu affecté woon Medina Barthélemy effacé na ko ku voteel Barthélemy Diaz bugguloo Medina parce que ma wax leen ko dama ni lépp loo xam ni jëmoon na Medina Barthélemy Diaz dindi na ko ci budget Medina budget ville de Dakar Barthélemy Diaz moo jiite li si mais ba ko mu xalaat recruter doomu ndakaaru Guy Marius Sagna la xalaat ak xawma colonel lan mais xanaa boobu daa fàtte ne xaalisu Ndakaaru salaire ku nekk ci ñoom mënoon naa jël fukki xale mani bu leen ci dara nax de suam waar di nii lamp yi mujjee tàkk ci ville indi ko ci Ndakaaru du Barthélemy Diaz xam nga lan la suam waar di ni bi mu fiy jógee dafa am lu bari lu mu fay yooyu mu yoon nag bu ñu koy livré day tombeeg Barthélemy Diaz doon fi maire waaye du moom parce que bi mu fi toogeeg léegi appel d'offre amagu fi bu mu fi toogeeg benn dépense ci journaux yi boo kon ci commune yu bari ci Ndakaaru fay yañ fay defar lu suwaam bàyyi woon ak ndakaaru la lamp yu bari yuy takk lu suwaam bàyyi woon ak ndakaaru la terrain jaraaf subvention bi suwaam war jini la kon mairie ndakaaru Medina daan na am plus de huit cent secours ci tabaski ren amuñu sax lu ma trois cent parce que Barthélemy neen day xeex ak waa Medina kàddu yi Bamba Fall Ndiop Basel dëkk la bu nekk ca commune bu Pekes nekk ca région bu Thiès dëkk boobe nag def na lu toll ci euh, téeméeri at ci biñ ko sampee ak léegi nekkit dëkk boo xam si fa la Ngoone Latiir Diop daan jàjjoo ci bu daan dem ci ay xeex waaye nag jamono ji daanaka dëkk boobe dañ ko fàtte ndax euh, bépp jafe-jafe boo xam si ab dëkk da koy jànkoonteel amee na ko Cheikh Anta Diop. ñu ngi fii ci Ndiop Basel. soriwul ngol-ngol. dëkk bu am cosaan la ndaxte fii lañ daan mbootale la joor ngoone Latyr Diop Malick Bassel ñi ngi ko fekk mu toog ci pénc mi mi ngi ñuy jotale ak cosaanu dëkk bi dëkk bu ko mag ci Kajoor bariwul ay téeméeri at ak nangam am na ko mag ñu jëkk Lat Joor daa dem cosaanul Jóob Bassel boota lum Jóob lañ daa woo bu Lat Joor masaa takk boota lum Jóob bu ko woo dikkul xare bi dañ koy tekki waaye dëkk la boo xamante ne daanaka dañu koo fàtte amuñu ndox amuñu courant yoon wu bari suuf la yoon bi mi ngi nii balaa ngay egg mbay laa sonn loolu suuf kase dañoo dox a dox ba sonn mi ngi noonu te yow xam nga ci dara balaa ngay ñëw da ngay sonn. Mbodj Ndiaye moo yor seen kàddu. ay kilomètres la dañuy dox guddi gi am ñu leeraay lii la ñuy niite ta xool nga li dëkk ci dëkk bi yëpp waaw wala solaire yenn saa yi nga dox ba mu yàgg nga tase tudduma lambaay daaw rek laal na fi xale dégg nga waaw jaan ren ji ray nañ xaw parce que askan wi yeewoo fii nee nañ du jëm ci wàllu wér-gu-yaram it sooxe na fi lool ndaxte amuñu bërëb fajukaay dañuy dox ñaari kilomètre dem dëkk bu mel ni jamatin ngir di fa mën a fajoo ji Fatou Diop nekk nu gox ci dëkk bii di Diop Bassène ku ci ëkk sa ñaari saret lañ la tagal am na ci liir boo nga xamante ne bi demee jamatin ba mu judd fas yi affaire am dagg dafa wadd ci biir dafa juddootu waaw yooyu jafe-jafe daal lan am mhm. gis nga dëkk bi doom ju fi doon judd danga yor lamp yi nga yor wala nga yor torche doo gis noo koy liggéeyee nun daal wax dëgg yàlla leenu nekk metti na ñàkk nan courant ñàkk ndox ñàkk carte de santé loolu daal suñu problème la ay jafe-jafe yu bari la waaj Ndioum Basel am nee nañ daal ñu ngi ciy sàkku ne kilifa yi rawatina euh, maire bi ñu jokkool di Pekes ak kilifa yi nekk ci nguur gi ñu geestu dëkk bi ndaxte dëkk cosaan la RFM Thiès Cheikh Anta Diop. tàggat yaram sport weekend lay doon dañ ci ànd ak Malal Junior Diagne jangeen jëf dal leen jàmm ci sport weekend ñu dooree ak wàllub euh, football si jigéen ñi jëm si barrage coupe du gannaaw ba Sénégal ñàkkee si wàllub euh, jongante ngir dem ca kanam ci google coupe d'Afrique di xewee ca réew Maroc gayndey Sénégal yi nag dinañu amal ab jongante ngir rek mën a bokk ci barrage yi seen diggante ak euh, Tunisie lay doon si dimanche ji ñu déglu ci loolu le Youssouf Bodian 27 juin bi weesu Tunisie ak Sénégal defoon match nul kenn dugalul sa moroom dara ci match xaritoo fële ca Tunis équipe bi gaynde yi ak seen staff xam nañ ko bu baax a baax suñu sukkandikoo ci seen sélectionneur di Mame Moussa Cissé. équipe boo xam ni euh, comme Maroc dañuy football euh, ay joueurs yu technique mun nañu passante dañuy def mouvement bu bëri euh, vraiment am nañu ay potentialité yu bëri. mais aussi am nañu ay faiblesse te bi ñu footballeek ñoom gis nañu jàngat boobu léegi nag loolu dinañ ci liggéey pour xool nan nañ koy exploiter pour mun leen a gagner ci match suba bi mais daal li ma bëgg nit ñi xam mooy xale yi tey jii nii dellu si waat boo xam ni euh, comme Maroc dañuy football euh, ay joueurs yu technique mun nañu passante dañuy def mouvement bu bëri euh, vraiment am nañu ay potentialité yu bëri mais aussi am parce que loolu dina permettre ñu dellu si dynamique positive de victoire bi ñu nekkoon mais aussi coller encore si éliminatoire coupe du monde bi. sélectionneur bu Tunisie moom it fas yéene sukkandiku ci match boobu le ngir daal di am ndam ci kaw Sénégal Samir Landwazi. c'est un avantage pour parce que les euh, avantage ci ñaari équipe yi euh, ndax euh, joueurs yi xamante nañu ca Tunis defoon nañu match bu baax ci premier période bi ñun ñoo dominé deuxième période bi xawoon na équilibré waaye Sénégal moo dominé léegi ak match ñu fi jot a joué yaakaar naa ne sama équipe mu ngi jëm kanam dina doon match bu métti ñu am yaakaar ni nag euh, ñun ñoo ci am ndam waaye may souhaité bonne chance ñaari équipe yi. et équipe yi am ndam ci ñaari match classement yi amal ci dimanche bi dinañ bokk ci weeru février ci ab tournoi bi dajale fukki équipe yu bàyyeekoo ci ay continent yu wuute ca Nouvelle-Zélande. ca mujjantal ga ñetti yu njëkk yi ñooy qualifié pour coupe du monde 2023 Youssouf Bodian Casablanca RFM. geneen jongante ga des di am dox diggante Botswana ak wa Cameroun. si wàllub euh, football ba léegi des koy waxtaane mu jëm ci euh, naka la ñuy def ba Tiwaawan am jumtukaay yi war yëpp ngir xale yi mën di fa tàggatu te di ko defee nu ko bëggee loola taxoon ba seen meer ba daal di kon dajale mbooleem nu yëngu cool tàggat yaram ak ci tàggat yaram bu mën a doon ngir nu xayma jafe-jafe yi waaye itam xàll ci ay pexe ngir saafara mën caa juddu ndaje ma ba mu jeexee lépp les xam ni waxtaanee na ko ca foofa Cheikh Anta Diop moo ko wàllu tàggat yaram président ASC yi président club yi football basket ak handball ñoom ñëpp ci salle bu mag bi ci mairie bu tiwaawan doon waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ne ndaw ñi am nañu ko ci fu ñuy tàggate seen yaram rawatina stade bi nga xamante ne ndaw ñi nee nañ dafa màgget te dañoo bëgg ñu defal leen ci gazon synthétique ginnaaw bi leen job si dégloo mu bëral ne ay bés bii di ñëw la ñuy door liggéey bi te Tivaouane stade bi dafay am gazon sentetique moo tax rek pour def ko nañ ko def entrepreneur baa ngi nii dama ne semaine prochaine mu commencé wax naa yéen xam naa lan ngeen bëgg dafa fekk si ne man loolu laa bëggoon dama ko doon teg rek ci yoon parce que nit ki mënoo ko liggéeyal te wax loo moom mais incha bu soobee entrepreneur baa ngi tag sama kanam semaine prochaine ñu commencé ku am xaalis bëgg a dama di foo loué c'est dégg ngeen ko d'accord nañ ci ñun ñëpp defar gazon ak li d ngeen ñëw di remercier aussi. ki yor kàddu ndaw ñi nag. rafetlu lool wax ji te di xaar nag liggéey bi mu door waaye nag nee na lii di Tivaouane soxla woon nañu ko Ousseynou Lo nekk président zone 1C bu Tivaouane. comme ni ñu ko waxee léegi par rapport au nawetaan ñun dañu ne nawetaan yi. defar stade bi moom moo ñu ko gënal parce que loolu mooy li immédiat mooy li taxaw parce que gazon bu mu nga tëdd bu ñu ko fa bàyyi mu yàqu te ñëpp xam nañu football wu département bi li ko freiné mooy ñàkk infrastructure bu baax parce que mënoo di football ci suuf dem di wàcc nañ moo tax suñu équipe yëpp wàcc nañ boo koy xool donc nag kon gazon bi dafa nekk woon facteur boo xamante ni dafa war a relever le sport entrepreneur yi nga xamante ni ñoom ñoo yor wàllu liggéey yi demoon nañ ci stade bi doon xool nee na lépp yem na te liggéey bi nee nañ ñu ko def ci ñetti weer RFM Thiès Cheikh Anta Diop ñu jeexal ak wàllub euh, basket si jigéen yi jëm si playoff quart de yi si dimanche ji Duc jaraaf ñoom ñooy ak waa asfo loolu mooy li gënoon ci sport week-end Matar ci xarale bi Madal Junior si jëf salaamaaleykum jaajëf yow tamit malal Junior Diagne jaa ngeen jëf yéen tamit mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci xibaari suba si ñu fàttali leen li ci gënoon a Serigne Saliou Sène Fatou François Manka bu roi mankaañ yi génn ci cell gi mu nekkoon di woo ñëpp ci ak dal ak ñu gën a booloo fekk booba kon kuréel gi ëmb mankaañ yi gontoo yëglu ni ki démb ne li nu bëgg moo di Fatou François Manka boobee lépp ñu daal di koy euh, leeral baykat yi nekk ci bassin arachidier yi itam di yëglu nekkoon ren nawet bi xëeñul neex euh, benn taw bi yeex na ba ca des moo di kon njëgul engrais bi cher na ba jéggi dayoo campagne bi jëm ci élection falum député yi benn dëkk ñaari gaar di Thiès oto maire ba di euh, docteur Babacar Diop la ñu songu ba yàq ko li ci doy waar nag moo di ne militant yu Pastef lañ ca joxoñ baaraamu tuuma maire baat dem na ca police ngir euh, yëglu Bamba euh, moom bàyyilul dara maire bu Dakar di Barthélémy Diaz ndax nag dafa jàpp ni kon lépp loo xam si yelleef la bu maire bu Médina daal di amee ca ville de Dakar moom Barthélémy Diaz mi maire bu Ndakaaru da ko daal di bloqué li mbokkeek leneen Diagne moo daal di buural bi la jotaayu xibaar di gërëm bu baax a baax Abdou Thiam mi nekkoon ci euh, machine bi Serigne Saliou Seck fare woon ci kàddu gi 10 heures remis ménage 11 heures grand jury midi grand journal 13 heures ma del suñu yaatal jàngeen jëf publicité sur RFM